nañ la sa turak sa sant waaw tey nak dañuy ah, dañ leen di nuyu rek jox leen rendez-vous suba ci altine ji ndegem soob na suñu borom suba na dinañ duggaat ak yéen ci aada suba dinañ duggaat ak ci aada ndax manam aada ji diine moon ta dem bàyyi aada ñom ñaaray and ba keroog yamal qiyam li mom la leen di jox rendez-vous suba ci altine ji ci dole Cheikh Ibrahima Fall Lamb ngeen kar khadim khadim Baye Fall. nak tey nag dañuy dem ci arène ja Ndakaaru ci lamb ji ndax man mi di wax ak yeen dama béré ba bàyyi béré man ancien couloir la barki dem décor nañ ma son bu son bu ngeen xolé vidéo yi sama live bu ngeen bulu son bobu nonu bu son bi and ak bulu bi dañ ma ko décoré man nama yalla bal balati ma man man mbiru askan wi la won ba tay bu ma day neex ndax kenn dàqumaa yëngal waaw léegi diggante combat yi ñu décroché muy Balla Gaye Boy Niang doomu Dégol Sa Thiès rëg bu ma la yóbbu woon ca làmba ja ci suur bi lu la koy perte loolu difficile lay doon ndam la la koy perte loolu difficile lay doon ndax yéen ñaar ñëpp xam naa seen bëre yow attaquant booy Boy Niang doomu Dégol bëre bukki ngay bëre na ngay daw waaye doo sori yow booy ñaa dangay daw bëre bukki ngay bëre dangay daw waaye yaa ngi ñëw buñ la dàqee xaar xaar ko day ñëw te yow booy ñaa li ma seetlu ci yow ci sa ñaari combat yi passé yow ñeme woo xat xoor am njaay joxal jóob maanaam mbojjum kaani booy ñaa yow ñeme woo ko lu leer laa lay wax nii man xam naa làmb ndax damaa bëree bëree bëree dóoran tey kurpeñ fu ne waaye ñeme woo mbojjum kaani kulaanil mojum kani kero nga ñak sa combat il faut nga dorantey kurpeñ res res res res yow booy do mu dégol yow lay wax booy ñaa kii eh, bala gay yow garde moom dootoo ko am ci kaw suuf xereñ nga lol mon nga bëre sa manam Ousmane Diop la nga musiba la nga da ngay gem amo garde to carte bi moom mënatoo koo travailler barki Cheikh Ibra Fall passé na waaye bés boo andilee manam sa chef bu ma la yóbbu woon la nga berek deuxième combat bi nga berek Modou Lo bo ko andilee booy ñaa doomu déggul da nga koy daal jërëjëf. muslaay ci lañ né ba tey ngeen déglu akam xel to ken ci yeen bañ ma dégloo xol duma sëriñ buy ñaan. ay tegtal laa leen di jox yoo xamante ni ku ko def suñu borom mën a laa musal ci kattanam doole Cheikh Ibra Fall ndax man Cheikh Ibra Fall laa yaakaar rek lii dañ ma koy baaxee rek ma leen koy baaxe waat wuutal ma maanaam mbogo yi reenu mbogo yi ñeenti reen sa biir kër nga tooyal leen boo ñu tooy nga wut juróom-ñetti puso reen bu ne nga sànte juróom-ñeenti puso ñetti puso reen bu ne nga sànte juróom-ñetti puso nga wutal ma puudaru fetel witeenu kër ren bu ne ñi juróom ñet pousso nga tay dugal 4 fi wa 8 nga jël ci digg bi nga dee ko ni tuuti ba mu def trou nga jël poudre fetel bi soti ci jël maanaam witeenu kër bi saañe ko ko bokoy sul ci bir kër gi witeenu kër gi moy féete ci kaw mok fetel mok poudre fetel fi ba ca kaw asaman sa lepp lu tim sa kër lo xamane lu bon la barke mam serafa la lay ay cartouche lañ koy xel di ñaf bobet set maa leen jox boobu ci doole Cheikh Ibrahima Fall euh, maa ngi ñaanal sama benn paa bu baax ñu koy wax bay Ngaaru Seen dëkk Ndofeen ñu naan ko Hamad Seen lañ ko doon Hamad Seen la tudd ñu naan ko Ngaaru Seen yor na ma ñeenti at yal na ko yàlla yërëm ci doole Cheikh Ibrahima Fall al Demba Njaay ku ne xam na ko Ndofeen nu neem yor na ma juróomi at muy juróom-ñeenti at maa ngi leen di ñaanal yàlla yóbbu leen ca Firdawsiya ndax ñoom li ñu def ci man rëccuwuma ko alhamdulilah rabbil alamin muslaay lañ ne ba tey de ci muslaay lañ ne wutal ma koone garabu koone nga naan maanaam nga xeli ndox mi na ma nga dem fekk maanaam nit lekk ko to xamoo ko ko lekk nga dem forte boo xam ne dafa am ñeenti turu nga dem wutal ma karaw ci baaju naar yi mooy fi ñuy defaree der yi fi ñuy dindee der ah, karaw yi ci der yi kor uude yi maanaam der xam ngeen fi ñu koy dindee ca baaju naar ya foofa boo fa demee gunóor sax bëggu fa dara dafa fekk sax dara loo xamante ni day wut foofa lu mu lekk ca karaw ya tibbal ma ca karaw ya ab com wutal ma garab gu rëy nit garab gu nit yéeg daanu dee sur nga andil ma ko garab gi ngay ah, garab ngay njëkk a soox ci doomu koon yi ci ci yi tek ci karaw gi fi nga xamane bo wacce sab lal fa ngay tek say tank fa nga koy miné dañ koy muur ak perkaal ci bayre lañ jëm muy manam bayre yeen ñi nga xamane ngeen di dem ci sëriñ ñu leen di may bayre bayre ab sëriñ du la ko may nga jël ko to amo muslay ndax sangu bayre day andi manam yenn conséquences yi ngeen di dégg fi ci réew mi yépp sangu bayre bu àndut ak muslay a koy def dem ci serigne ne ko bayre la bëgg mu xap mu xap la bayre nga dem sango ko to amul protège dalay xir ci li bu tàkkee mën la xir ci jabaru jambour mën la xir ci dugg ci xaalisu jambour ñu naan dañ ko kaso mën la andil lo xamane ni manam du sa wareef ñu naan ay eh, diw bet na ma diw bet na diw bet na ma dafa sango bayre bu amul protes bayre nak li ma leen ci jox moy ben rek la len ci jox man dama ne koy may rek ngir jëmu ji garabu kat buñu dag ak semmeñ manam ni law bay def gor ak semmeñ buy jebbi dina wat ci bor yi ci rebor yi day day jebbi nga timal mako dag ñew ba ne naam ñas day jame nga dag ko dem dagate ko bamu bamu bamu do bamu tuti nga wer ko bamu nga dëpp ko bamu don sunguf wuutal ma suufu juma wutal ma suufu bi na mbet bolé ma ñetti bagage yoy noonu sangoko bu fekkee ñeme nga ko ah dinañ la dégg de di nga siiw de dinga nga siiw lool lool lool amoon lu ma leen may ci bayre yéen saa nga tasee nit mu naan sama loxo bi lu ma yor mu dem sama loxo bi dafa mel ni dafa bon loxo bu bon la ci mayee ndimbal mooy tàggu nga wér ko ba gis ko jënde ko yàpp dem yéeg ba ca kaw wala nga wut ku la yéegal bu dee garab guy jame la nga ne naam ñas bu dee bu lewet nga ne naam léy dem ba ca tàgg ga bàyyi fa daggu yàpp jar na nga wut ab liibar jënde ko tàgg gi jënde ko tàgg gi wut ca bantee ñëw andi dëpp ko ba mu nooy doon sunguf nga jël sarto sarto yi ñuy dagg ñax moom ku ne xam na ko sarto day dugal rek waaye du génne boo dee góor ñeenti potu ndox boo dee jigéen ñeenti potu ndox nga dugal sarto bi jël sunguf si sotti ba mu saf nga sangoo ko sa loxo di nga tëye dara maanaam boo naan lii kañ laa ko yor xam ngeen ne moom day rey ndax bu sawee boo ko naanee mën na laa andil jafe-jafe ci muslaay lañ ne ba tey nga rey ko nga gis ko rey ko jël deret ja rib ko ci sa tànk yi ngay dégg tànk lii mooy dégg ci nga rib ci deret ji sa ñaari tànk doxal dem ba sa tànk ñu ne ma ko yóbbu ci sëriñ ku tib sab tànk yóbbu ko cib sëriñ du ñib si laa wax barke Modou Moustapha Fall nuyu nañ leen ku nekk sa tur sa sant keroog nag dugal nañ ab vidéo maanaam ñu naan non secret kenn du ko joxe secret kenn du ko joxe secret bi nga joxe mooy bi nga wax ba mu egg waaye bii tey moom day egg muy wàlla maanaam wàllu muslaay ci la ñuy ne tey ci altene ji ci doole Cheikh Ibrahima Fall Lamp yéen ñi nga xamante ngeen a yori palaas bañu yak sa place woutal ma ca garabu garabu ya bantu ndar bogel wala bo gisee garab ga ak foko gis bu la neexee boo bu fekkee mën nga fa dem nga dem nuyu ko nam lay wout ca bante ya ñëw sa bir place woutal ma ca bir bitik ba ñenti puso ñenti puso dugalal ñetti ñenti potu ndox bo dee gor bo jigen ñetti potu ndox ñenti puso ci ñenti ni ko tubaab yi waxe noor xaw ma sud xaw ma nan ouest xaw ma xaw ma yéen a ko xam daal ñeenti xeble yàlla yi ñeenti xeble yàlla yi nga jax taxaw jàkkaarloo penku bi sa biir place nga sangu ba pare bu sooy nag sóoraaleel bu ñu rot sangul ndànk rek ba mu jeex nga jël première puso bi ngay jël dañ koy dugal ci maanaam penku bi ci biir suuf si ba mu raw daaj ko ba mu raw ci biir suuf si nga jóge fa topp sa topp sa loxo bi sa loxo ndeyjoor bi bët gaan bët saalum nga raw loof puso ba ca biir suuf sax nakaaru da ngay xel di tourner rek dugal ci biir dugal ci ba mu bant bi fi nga gas fa ba mu xóot nga suul fa bant lu fa andi lu bon da koy yàq te lu mu fekk ci biir suuf si da koy yàq ci loo xam ne bëggoo ko bii ko mosal ngir